ay élément bu général Moussa Fall daal dinañuy rek nekk foofee ca Ziguinchor lañ koy waajal xamaguñ ko ndax ñoome ña nga taxaw temb rek xëy na nag bokk na ca lañuy jàpp rek ci fukki fa ak juróom-benn ci weeru nag mai bile ngir nag mën ko jël. ba tax na lieutenant Mbaye Thiandoum moomee di ab GIGN commissaire Thiandoum Mballo bokk ca BIP rek jamono ji ñu leen di gis foofee ca Ziguinchor docteur Cheikh Tidiane Dieye moom daal di àddu jëm nag ci li mu jàpp ni fi mu nekk ni nañ ko préparer rek physiquement ndax ñoom dañuy xam ne rek dëgg bi daal mooy ñoom duñu bokk benn yoon te loolee mën nañu jàpp ni askan wi taxaw nañu temb rek te duñu sax wéet ci lu ñu mel ndax mbir mi daal ñun bu ñu booloowee doon benn dinañu ñàkk nag te bu ñu ñàkkee dina metti lool su ñun te ñun itam ñoo mën a jàpp rek ba ñoomee duñu am dara